am yéen kaay yu bari xëyandoo tey wàllu politique Walf Quotidien taxaw ci parti réew mi njiit ma di Idrissa Seck ma ngay boppam ngir xool naka lay duggoo euh, duggee ci élection présidentielle yu 2024 na muy nattee boppam euh, sas na ay militant ñu euh, bindu ngir ñu xayma li mu militant ya mu am poids électoral bi xool ndax day demal boppam ci le wote tànneefu njiitu réew 2024 wala boog day longo coalition Benno Bokk Yaakaar moom la yéen kaay bi di Walf Quotidien fësal premier ministre gawoon di Idrissa Seck premier ministre geneen Euh, gi euh, soobu ci wàllu politique waaye nag tàmbale naa am lekk yoon yéen cabinet muy Agibou Soumaré nga xamante ne doon na fi premier ministre woolu nañ ko tey ca euh, sûreté urbaine lañ koy cay wooloo bokk na ci kaddu yamu jotoon a yëkkati doon leerlu ndax njiit réew Macky Sall dafa fab lu toll ci juróom-ñaari milliards jox ko ganam googe di Marine Le mi fi jaaroon ci Ndakaaru ci weeru janvier gi ñu weesu Walf Quotidien du gulet ñuy woolu ab premier ministre ci kanamu yoon ba ci njiitu réew Macky Sall ba ci Mamadou Dia euh, bi la yoon kaleen euh, ñeenteel euh, di Hadjibou Soumaré ci premier ministre yéena kaabi di ne bu deful ndànk lu doy war mun na ko ca dab ci googule dossier Hadjibou Soumaré mi ñu wolu tey ca sûreté urbaine yéena kaabi moo ñu ko yëggee yéena kaabi di ne mun nañ toll ci ñaari laaj yu nara sampu ci ndoddu premier ministre gawoon lañ ko cay dégloo ci kaddu yamu yëkkati ci nganuk Marine Le Pen yéena kaabi di ñu xam lekk li procureur sàkku ci ci euh, sûreté urbaine euh, jëm ci Hadjibou Soumaré yenn a di le peuple quotidien ne tontu yaa ngi bawoo ci li nga xam ne mouvance présidentielle bi daanaka euh, songoo nañu dal ci ki nga xam ne Hadjibou Soumaré Mamadou Lamine Massaly yekk naka lu mel ni xeme ñaawlu anam yam waxee ci jamono ji ci bile dossier faatu Thiam moom gis ne daanaka xàmmeetul Hadjibou Soumaré mu ngi ci yéen a di le peuple quotidien yéen a di Dakar Times dañu xamle Marine Le Pen bëgg naa seetal boppam ci ngan gu mu amaloon fii ci Ndakaaru ba tax na euh, dañ ko euh, xaar mu janook euh, taskatu xibaar yi woolu nañ ko tey sax invité nañ ko bu 9h jotee foofee ca France Inter ci jamono joo xamante ne sûreté urbaine fii ci Sénégal jot naa woolu kii di Hadjibou Soumaré fas yéene jàkkaarloo ko police mu ngi ci Dakar Times yéena kaabi di yor yor bi di ñu xam lekk Ousmane Sonko njiital Pastef kalaame na ci yoon nguuruk Sénégal mi mu ne daanaka dañ ko bunduxatal yàggul Soudione keroog bu mu jógee ca tribunal doon am lekk yoon ak euh, Mame Mbaye Niang euh, ca yoonu Soumbédioune googee nag lañ ko nguufaanoo ba jëlee ko ca wotoom gamu ne woon euh, dugal ko ci beneen woto takk der doon lu metti lool njiital Pastef Ousmane Sonko tax mu kalaame ci yoon nguurug Sénégal ak alaxam mu ngi ci yoor yor bi yéen di la man daa taxaw ci ni yoon di doxee ci mim réew ana lu tax ñu bari singali yoon ana lu tax ñu bari di xotti war ma yoon yéen kaabi bëgg a xam fan mbir yi amee jafe ndax yoon wala boog euh, sénégalais yi fa ñu dëkkal yoon yéen a kaabi di l'évidence duñu degtal tolluwaayu réew meek jafe-jafe dund gi euh, cher na lool ba jéggi dayo ci marché bi bokk na ci euh, xayma euh, njëgu dund gi nguur gi jëloon ci matuwaay booba léegi nag dara sotteegu ca doon lu merloo njiitu réew mi Macky Sall yaakaar bu tas la ci am te ndajeb conseil des ministre tax mu sakku ci amadu Ba premier ministre mu gaawtu mbir yi gën a càmbar yëf yi ngir askan wi mun cee gis seen bopp yéene kabi di Le Soleil ne njiitu réew Macky Sall sàkku na ci gouvernement bi mu gën a baral liggéey bi euh, jëm ci saytu euh, njëg yi ñu fi jotoon natt xayma ko ne moom la ñu euh, fas yéene tënk njëg yi ci marché bi ngir yombalal askan wi dund gi bokk na ci tamit sàkku na ci gouvernement bi ñu soobu ci révision exceptionnelle des listes électorales ngir waajal élection présidentielle yu 2024 yéene kabidi Sud Quotidien jigéen ñi waajal nañu 8 mars jot nañ ko màggal démb jëm ci saytu ak ak yelleefu jigéen ñi bokk na ci jafe-jafe leen tënk mbirum suuf bariwul jigéen ñi lañ leen cëral ci wàllub suuf ñu fa euh, mun di béy saay su ne mbirum suuf moomee sax euh, jigéen ñaa ngi koy euh, dund ca Ziguinchor Sédhiou Saint-Louis Matam ak Mbour ak Kaolack ak Diourbel ak yeneen i gox yéen a kaabi di l'info ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu foo dem ci Sénégal gis lañ ñu ci béy seen waar yéen a kaabi ne béy na waaram ci réew mi ba tax na turam euh, dugg na ba faw ci taarixu euh, Sénégal joor Fall Sow mi njëkk a euh, doon procureur bu jigéen fii ci Sénégal jaar jaaram ak liggéeyam yéen a ne royukaay la soxna joor Fall Sow yéen a kaabi di Walf Quotidien xeetu ñu dégtal 8 mars groupe Walfadjri kenn demul ñu des amicale des dames bu Walfadjri jot nañ ko màggal Sénégal waxtaanee xarale yu bees yi lan mu war a doon taxawaayu jigéen ñi Ramatoulaye Sarr mi jiite eh, googule kuréel eh, daal di sàkku ngir ñu jox cere ak gën a jox gedd jigéen ñi fii ci Sénégal eh, ci googuleb ndaje marraine ba di Khady Fall jot na dellu soit Euh, ci liggéeyu jigéen ñi rafetlu yi tamit démocratie bi nga xamante ne moom la groupe Walfadjri nekk ba ba léegi ak taxaw jigéen ñi saay su ne yéene kaabi euh, Walfadjri di ñu xam lekk jigéenu groupe Walfadjri ne am na lu leen métti lool na ñu màggale 8 mars bi te Pape Ndiaye jotu ko fekkee ma ca loxo yoon ba tax na ñu doon ko ñaanal sàkku itamit euh, ci yoon mu teggi loxoom ci Pape njaay mi nga xamante ne teg nañ ko loxo yàggut yéene kaabi ne tax na ndaje 8 mars bu groupe Walfadjri amutoon quatre heures ne Pape Ndiaye mi ñu teg loxo ci jamono ji doon lu metti lool euh, Horizon sans frontières Reporters sans frontières kuréel la gu euh, taskatu xibaar yi euh, sàkku nañu ci yoon ñu teggi seen loxo ci ndoddu Pape njaay ngir mu am afia delluwaat ci métier mi delluwaat ci njabootam yéen kabidi stade xëy delluwaat ci wàllu tàggat yaram ñeenti final yoo xamante ne Sénégal def na ko ci boobu ba léegi yéen cabinet atum lëmm goo xamante ne Sénégal jot naa ràññeeku ci wàllu football final Sadio Mané ak ñoñam gàddu coupe ba euh, finalu CHAN beeg euh, finalu U20 mi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy dund ci jamono ji ba ci finalu euh, but choc yene cabinet ci bile kann U20 Sénégal moo ci finalu niki samedi digganteem ak Gambie lay doon yene cabinet suñu lamb ne lamb ji fi amoon dimanche gi ñu weesu verdict ba lañ doon xaar am sax ñu ko joxoon rëg-rëg bu ñu sukkandikoo ci sifflet arbitre ba waaye nag Sa jotoon cee jébal kilifay ab recours recours googee mujjee naa sotti euh, Sa Thiès euh, jëlaat na drapeau am rëg fab na drapeau ba delloo ko doomu Double Less di euh, Sa Thiès jàmm ne ñooy ci lamb ji yem fu ñu jeexale xeetu yéen kay tënk la woon ci baatu askan wi dañ leen ko faram-fàcceel na mu gën a yaatoo ci xibaaru digg bëccëg gi Seydina Omar Ba maa ngi lay nuyu